يا ربنا إن الورى تبدره لأوليائك معا ليسفه إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ndigal tukkeeti na ci xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg te wér ci efuk sering abdoulahi mbàkke Khalifah sering Bara mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ abdou kumba suuna mbàkke ak mboolem njaboot gi yépp ci basiru coro mbàkke Khalifah sering seex coro mbàkke ak mboolem Jabotuk seex coro mbàkke gépp góor ak mag ak ndaw ak Jabotuk jabootuk seex mu amadou Bar baara gi yépp mbokk yi ñoo ngi fii ci guy mbind ngir waajal bis bu mag bisub julit bisub lislaam bisub taalibe sëriñ tubaa yépp waaye di bisub seexul xadim di bisub mu amadou lamin baara muy bis bi nga xamee ni ñu ngi koy waajal mu nekk alxames le 15 février di Mbàkke Kajoor képp kuy wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah ñu di leen ko fàttali ci kilifteefug sëriñ Abdoulahi Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Koumba Suuna Mbàkke xalifab Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kon mbokk yi ñu maas déglu. mbokk yi ñuy déglu ànd ak dañu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, tey jii ñoo ngi ci pàkk bu sell pàkk bu màgg di Touba Guy Mbind pàkkub Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacké waaye ci teewaayu Serigne Abdoulahi Mbacké ñu gën koo xam ci Serigne Abdou Koumba Suuna mi nga xamee ni moom la yàlla dogal tey jii mu nekk xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacké bis bi nag wala jataay bi li nga xamee ni moo ko sabab mooy fàttali ak waajal bis bi nga xamee ni mooy bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacké muy màggalug Mbacké Kajoor dégg nga léegi ñu tudd ko ñaar fukki fan ak juróom ñett ci rakkaat yu gàmmu dëppoog itam incha allah le 15 février incha allah màggal Mbacké Kajoor nag buñ ko boo tuddee xel yu bare bari dana dem ci jàmbaar ju màgg muy sëriñ Sidi Mokhtar mbakke mi nga xamee ni barki dem rek la ñu dëdd ñuy ñaan suñ borom yokk ay leeram waaye taas ñu ci barkeem ci liggéey bu am solo bi nga xamee ni liggéey na ko Cheikh Abdoulahi Mbacke mi nga koy yëgal mbooleem waa kër sëriñ Touba yi yëpp tàmbalee ko ca Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax Cheikh Mouhamadul Moustapha jàpp naa ni kenn umpaliwul digganteem ak Cheikh Mouhamadul Amin Mbacke ka nekk ca ba tey di sëriñ Ahmadul Mokhtar Mbacke waaye itam ñu koy yëgal itam sëriñ Mbacke Madina te mooy sëriñ Cheikh Bombali mi nga xamee ne mooy xalifa Serigne Mbacke Madina te kenn ku nekk xam na diggante Serigne Abdoulahi Mbacke mi ak Serigne Mbacke Madina muy léppam. noonu itam bu Serigne bi waxee ni waa kër Serigne Touba gi yëpp la ko yëgal bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn. kon ci la koy yëgalaale itam ci biir waa kër Serigne Touba yi képp koo xamee ni bi nga askanoo ci maam maharam ak mboolem mbusoobe yi ak mbooleem koo xamee ni rek bëgg-bëggu Cheikhul Khadim mooy sa bëgg-bëgg waaye jëm-jëmu Cheikhul Khadim mooy sa jëm-jëm sëriñ bi mu ngi koy yëgal ñëpp di ko yëgal itam mbooleem cheikh si cheikh si nga xamee ni wax waxta yoonu mu murit ñooma waaye itam euh, cheikh si nga xamee ni seenu ko jot ngërëmal sëriñ bi dafa dëppook jamono bi nga xamee ni ci la Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke mii di feeñ ci mbakki Kajoor ak la ca xew lépp waaye rawatina itam ca ñooña ma ngi cay beral ak woote njabootug Cheikh Ibrahima Fall gi nga xamee ni ñoom dañoo amub cër foofa te tey jii Serigne Cheikh Jëmb Fall jiite ko kon mi ngi ko ci woo di ci soññ mboolem mbokki taalibe yépp ak mboolem Baye Fall yi yépp waaye itam du fàtte njabootu maam Ibrahima Mbacke Kajoor mi nga xamee ni foofu la ko sëñ bi dëloon mu nekk fa ñu dëkkandoo ak ñoom dëkk bu sell dëkk bu set dëkk boo xamee ni bu rafet la ñoom it Cheikh Abdoulahi Mbacke mi ngi leen di soññ ci bis bi di leen ci woo waaye itam du fàtte njabootug maam Thierno Ibrahima Fati al-Mu'ti waaye itam du fàtte njabootug Cheikh Massamba Mbacke waaye itam du fàtte kii di njabootug Mamor Diarra waaye itam du fàtte njabootu maam Cheikh Anta Mbacke. ci tund woowu itam. ci njabootu maam Thierno Ibrahima Faati di ca woo mbooleem njaboot gi nga xamee ni ñooy njabootu sëriñ Cheikh Awa ball Mbakke maam na jiite ko ak sëriñ Muudu Moxtaar Mbakke mi ngi koy yëgal ñoom ñëpp ak mbooleem ku nekk ci tund woowee jëmmi sëriñ bi itam di ko yëgal mbooleem ñim bokkal turux yi ñi nga xamee ni mooy